mbokk internet yi ñu ngi leen di ziar dama ci mbég ci contentement chaque jour ak actualité di ñu gën a fàccee li gën a ci mim réew tey nag suñu actualité dañ koy door rek ba tey lakk googee nga xamante ni moo amoon fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru gannaaw bu ñu xottee li nga xamante ni daal di lakk itam moo di ay album lépp loo xamante ni ay nataalam ñu xotti ko muy Maam Góor Jazaaka naka ni démb nag daal dinay génn yàq lu mel ni xamee ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ñeneen mi ko yow Ousmane Sonko lan mooy sa problème ak man lan moo tax nga bañ ma université nee na Ousmane Sonko moo ko jiite mu doon ay kàddu yoo xamante ne nag Mame Gor Diazaka moo ñu koy xamle te itam jamono gi mi ngi def actualité sur les réseaux sociaux vaccin boobee nga xamante ne ñi ngi koy waaj testé ci li nga xamante ne moo jëm ci mbas mi di coronavirus ak ki nga mooy njiitu réew mi nee na am na yenn médecins yoo xamante ne du leen neex ndaxte li nga xamante ne mooy mbas mi jamono gi nag Sénégalais yëpp tiit ndaxte am na mesure barrière yoo xamante ne jël na ko ci waaye aussi am na yeneen yoo xamante ne aussi ki nga xamante ne mooy le ministre de l'intérieur itam daal dina mel ni ma leen ko doon waxee sànq rek ministre de l'intérieur gannaaw bi nga xamante ne itam samp na euh, taxawal nañ li nga xamante ni tamit moo di mesure barrière yemu ca waaye aussi yenn sanction itam ak yenn interdiction daal nuy ñëw li ci mel ni salle de sport yi li ci mel ni salle de spectacle yi li ci mel ni place euh, publique yi li ci mel ni terrain yi nga xamante ne fa la ñuy euh, footballer ni ko xale góor yi di defee wala terrain yi nga xamante ne lu ci mel ni plage yëpp c'est interdit li nga xamante ni yooyu yëpp dañ ko daan def ndaxte li nga xamante ni mooy mbas mi ak cas communautaire yi dañu nemmeeku ne mi ngi commencé di gën di yokk fi nga xamante ni mooy Sénégal naam tere woon nañ ko fi déete waaye ñu bàyyiwaat leen waaye cette fois si nag ministre bu bees bi nga xamante ni moo yor euh, wàllum ministre de l'intérieur itam daal dina ciy taxawal ab gëstu gu am solo ba tax na li nga xamante ne ma bamtuwaat ko li nga xamante ni mooy salle de spectacle yi salle de sport yi ak terrain yëpp daal dinañ koy dakkal ba mu set wecc autoroute à péage ab accident gu méttee méttee ma fa am ab chauffeur camion nag bu doon nelaw ca volant ba ba tax accident gu méttee métti am na fa mu doon loo xamante ne rek métti na lool ndaxte li ñuy wax saa su ne nelaw moom mun a ki ànd ak benn yoon a ki dawal Matar Ba mës a abandonné Ken Ndoye Ken Ndoye itam doon athlétisme koo xamante ne macha allah yóbbu na drapeau Sénégal fu nekk jamono gi nag mu feebar feebar gu métti waaye ki nga xamante ni moo di Matar Ba nee na ñëpp dinañ ko jàppale itam te ñëpp dinañ ko dimbale dañuy dem ba Maroc juróomi nit daal la ñu jàppagum pour ci li nga xamante ni moo jëm ci génn am àdduna ki Amady Niang Amady Niang nag gannaaw bañ ko reyee foofu ca Maroc jamono gi nag euh, police bi mu ngi def enquête bi rek langue Covid 19 ah, ba tey fi nga xamante ni mooy Sénégal naka ni tey am na ñaari nit ñu génn àdduna déete waay waaye itam amaat nañ 127 test positif yoo xamante ne dañoo gis seen yaram ah, doomu jàngoro bi di coronavirus waaye itam actualité boo xamante ne nag dafa doon loo xamante ne àdduna ñëpp koy waxtaane jamono gi muy xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi ba tax na askan wi def nañ ci taxaw seetlu xool bu baax a baax ah, li ñuy xam ne nag lenn la planification familiale léegi xale boo gis saagam am na capote wala pilule mu doon loo xamante ne euh, li nga xamante ne am na ci ci danger kenn xamul ni mu toll te xale yi xamuñu ko xale jigéen yi nga xam ne dañuy fowee pilule te amuñu jëkkër xale góor yi nga xamante ne dañuy jël capote ju ko utiliser danger gi ci nekk jéggi na day lool ba tax na askan wi ñu ngi jooy ndaxte li nga xamante ni moo di seen doom yi yàqu nañ Euh, naka ni tey nag la anniversaire am 11 décembre 61 59 ans déjà ki nga xamante ni mooy son excellence Macky Sall di ko souhaité un joyeux anniversaire yàgg yokku weer euh, Dakar instant ñëpp ngi ñëpp ngi koy souhaité un joyeux anniversaire Canabasse itam de retour daal dinay ñëw ci li nga xamante ni mooy carrière am daal dinay ñëw ci li nga xamante ni en tant que chef d'entreprise yemu ca waaye aussi def na révélation yu am solo fële ci IGFM di wane li nga xamante ni moo ko bloqué ci carrière am ndaxte gisoon nañ ko fi mu def fi li nga xamante ni mooy buzz téewal li nga xamante ni mooy rab bi waaye ça fait bàyyi kenn gisatul kaana baas kenn déggatul gaana baas loolu lépp daal dina ko ciy ñëw waaye aussi mu taxaw ci lu am solo ci li nga xamante ni moo ko bloqué Espagne itam amoon na ab lakk gu méttee métti ba ñu nemmeeku ñeenti yi itam daal di ciy ñàkk seen bakken fële ca Badalona mu doon loo xamante ne nag gis nañ ne période seddaay bu ñëwee lakk yi day bari lool waaye itam ñu leen di ñaanal suñu borom yërëm leen te xaare leen firdew si naka itam lakk yi nga xamante ne amoon na fi bu Castor bi fële nga xamante ne itam mooy ca Pikine ak feneen ak feneen daal ñu gën a fagaru rek ci li nga xamante ni mooy ay seddaay bi oustaz Modou Fall nag cette fois ci ci beneen facette daal di joindre ki nga xamante ne mooy Moguette Mogate nee na ku mu nakari sa problème la nee moo Mogate ku mu nakari ci li nga xamante ne moo jëm ci koom-koomam moo jëm ci koppar gi moo jëm ci li nga xamante ne mi ngi koy def sa problème la moo Modou Fall nag tey dafa ñëw di defendre moo gét kenn xamul li tax kenn xamul ñoom ñaar lu ñu sekk waaye itam mi ngi def buzz sur les réseaux sociaux Mbayang de la série infidèle daal dinay jooy gannaaw bu ma amele woon ab émission di tawaay li ko jooyloo nag leen lu dul li mu ñàkk ñaari doomam mu doon loo xamante ni c'est touchant waaye aussi mu doon loo xam ne c'est inoubliable kenn du ko fàtte ñu koy ñaanal rek xolub muñ assemblée nationale itam la ñuy daal di dem ànd ak fa ñi nga xamante ni mooy l'observateur gannaaw bi nga xamante ni émigré clandestine bi ba tey fi nga xamante ne mi ngi foon waaye aussi tamit nombre de morts yi nga xamante ne am na ci waaye ba tey assemblée nationale jamono gi nag ñu nemmeeku fa li nga xamante ni moo di mbas mi di coronavirus ba tax na député yooyu nga xamante ne ñoo fa nekk ñoom ñëpp ñu ngi leen di waajal defal uh, test bi waaye aussi xool li nga xamante ne mooy uh, uh, nouvelle fonctionnement yooyu nga xamante ne moo fa war a am lépp loo xamante ne ci dugg la génn jamono gi fële ci assemblée nationale dañuy jël euh, yi nga xamante ni mooy matukaay yu mat sëkk ndaxte li nga xamante ni mooy mbas bi jot na fa am ba cinq cas confirmés dont deux cas graves fala ci assemblée nationale ki nga xamante ni mooy Marie Oudou Diop euh, di euh, soxnaay Pape Bouba Diop nee na dafa ragal dellu fële nga xamante ne mooy lans déeta waaye itam ñëwaat na ci parcours Pape Bouba Diop feebar bi nga xamante ne Pape Bouba Diop def na ko nee na Pape Bouba Diop naka la ko dugalee ci li nga xamante ne aussi moo jëm ci wàllum l'islam ne na itam li nga xamante ni mooy feebaru bu ba Diop bi muy soog a door ci loxo bi la ko doolee mu mel na lu paralysé waaye aussi tamit jaajëfal bu baax a baax nee na génération 2002 ndax taxawu nañ ko bu baax a baax waaye ki nga xamante ne mooy soxnaay bu ba job def na ay révélation yu am solo ci le stade ba tey ni ma leen ko doon waxee sàng ki nga xamante ne mooy Antoine Diome ki nga xamante ni mooy ministre de l'intérieur euh, du Sénégal daa dinay annulé feetu fin d'année lépp loo xamante ne xumbaay la ak rumbaay jamono gi dakkal nañ ko ba mu set wecc ndax li nga xamante ni mooy mbas mi dafa commencé amaat doole fi nga xamante ni mooy Sénégal ba tax na ni ñu koy waxee saa su nekk fagaru doo nga gën a faju ñuy xool rek ki nga xamante ne mooy Antoine Diome ministre de l'intérieur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 page seen page YouTube dal. wa Dakar instant moom bo xolé ñom sen tour rek day woné lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire lo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant fay prouver né ko Dakar instant ci kanam la jom inshallah. allah. ñu ngi koy suivre Dakar instant lan lañ lay wax na gaay dem abonné loolu bëgg si actualité ñew leen ci Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ na ko chaque ma xee bu yi may soxla yëpp ñoo ma jox muy dugg ci YouTube bi instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. waaye Dakar instant na fi nekkal Baye Fall yi war a siiw comme ñëpp. loo ci Dakar instant. Dakar instant yéen a ngi boo yeewoo moom laay seetaan.